asalaamaaleykum chers téléspectateurs de Leral TV et de Leral.net comme ni ngeen ko gisee tey nag ñu ngi fii ci Ndiassane plus précisément ñu ñëw ci résidence Cheikh bu Mohamed Kunta ñu war a waxtaanee li nga xamante ni rek moo di seenub descendance maanaam euh, ñoom seenub cosaan fan la ñu cosaanoo ak it jamono ji ñu nekk ni yan jàngat lañ ci am ngir ndaw ñi am jàngat ci biir euh, famille bi loole ci biir entretien bi nga xamante ni moom moom la ñu nam ak suñu papa Serigne Bounama Kunta di doom ci xalif bi waaye itam nekk représentant am fële ca euh, Parcelles Assainies moom moo ñuy dalal tey ji nag ñu war a waxtaan ak ñoom li nga xamante ni rek moo di historique gu famille bi ginnaaw bu ma ko nuyuwee rek dama koy jox kàddu gi bàyyi ko mu nuyoog téléspectateur. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla yal na yàlla sotti yërmandeem ci saabaam yi nga xam ni ñoo daan wax di topp yi ci gën di leen nuyu di nuyu kilifa gi ngeen jóge ak ñi nga àndal ñëpp tabaarakallaahu di rafetlu it teewaay bi ngeen ñëw teew si fii si Njaasaan ci dëkku Cheikh bu Mouhamed Kunta mi nga xam ni fa tabaarakallaahu liggéeyam ci diine eh, kenn naattablewu ko ah da nga laaj nag laaj bu am solo boo xam ne bii ginnaaw bi ñu tiitalee nag ci waxtaan beeg lépp ki nga xam ni mooy sunu baay di xalifa bi muy cheikh al bekaay ibnu cheikh al bekaay ibnu cheikh bu Mohamed Kunta cheikh al mooy xalif bi moom baayam lañ ko tuddee seexal al di taawu cheikh bu Kunta mi nga xam ni moo sañ ci Njaasaan ndax ginnaawam la génn àddina waaw mu gane àddina ginnaawam moo tax ñu tudd tubbeeku ko vingt-neuf seexal bekaay bii di xalif vingt-neuf la la gane àddina seexal bekaay baayam mu ngi génn vingt-neuf euh, àddina ci Njaasaan Kunta nag ñu bari ba léegi sax xamaguñu lan mooy cosaanam parce que buñ nee ay yonent bi seen maam ñu gis ñu ñuul ñu gis itam ñu dëkk Sénégal loolu dina bari na ñoo xam ne bii toujours dinañ ci xaw a am jaaxle waaye li am solo mooy ki nga xam ni mooy sunu maam di Uqba ibnu Naafi mooy juróom ñaareelu maami yonent bi ci Uqba ci ci ci ci fër boo limee ba maami yonent bi ba egsi ci faar fukk lay doon mais boo commencé ci oqba ba ci faar juróom-ñaar la kon ki la gën a jige moo la jur moo tax yonent bi ñun ñoo ko jur ci côté boobu mu dellu naat sunu maam nag ci suru ci côté shérif gi parce que seex bu naaw bi nga xam ne moo jur seex bu kunta mi sanc Njaasaan yaaya mi ngi tudd moom na Aydara di doomi Ismaïl di seetu Cheikh Abdou Khadir Jilaan Cheikh Abdou Khadir Jilaan di seetu Asan ak Useynu ñuy seetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon côté boobu moo fay sunu maam mais bu dee ci côté xureysin bi parce que kunte yi ay xureysin lañu waaw ñoom ñoo jur sërif yi loolu moom mooy li nga xam ne bii moom la ñu bari di réere bu ko defee yonent bi sallallahu alayhi dafa nekk ca Màkka sunu maam boobu di ba gane àddina mu tifli ci gémmiñam defal ko toqantal li ñuy tudde toqantal ni al mustajab ila yawmi diin borom ñaan gu nangu ba àddinay tukki saaba yi laaj yonent bi ni ko ndax dund day dund ba àddina tukki mu ni ko déedéet waaye lu bokk ci moom yàlla day nangu ñaanam ba àddina tukki ba boobu nag ñaari at la def ak yonent bi ca Màkka yonent bi riñaan dem Médine mu yóbbaale ko def dix ans Médine mu am douze ans sa yonent bi génn àddina saaba yi wuti yonant bi trente ans plus douze ans muy quarante deux ans ci la Muawiya nag jël xilaafa gi daal di koy def généralu armée bi boole ko 10 000 soldats boole ko ak Umar ibnu As ñoo dugal lislaam ci Afrique sunu maam jooju ba moo ñëw ba Tunisie sañ ci dëkk bu ñuy wax Xayrawaan ñeenteelu jàkk ci kaw suuf bu nit ñi jaamu yàlla sunu maam boobu Uqba moo ko fa tabax loolu nag moom la continuer di ñëw di ñëw ba ci Cheikh Sidi Moxtaarul Kunti mi nga xam ne moo nekkoon Boulanoir te sëñ Touba di ko wax ci ay woyam yu baree bare sax naan wa seexi naan kunti yu si la anwaari xawsul waraa xutbur al moxtaar yi kooku mooy ki nga xam ni moo yar sunu maam jii nga xam ni moo jur seex bu kunta mi sañ ci Njaasaan seex bu naama ñu tudde ma ko man moo nekk ndànk mi moom moo fi ñëw 1800 la ñëw bi mu ñëwee 1800 nag daje na fi ak ay dammeel ak ay ñu baree baree baree bari fa tabarakallaa am lu ñu jëflante ndax bi mu ñëwee dam mel dammel Amari Ngoone Ndeera bi nekkoon bar jàll moom la fi dajal booba Cheikh bu naa ma avant muy ñëw Cheikh Sy Mokhtar Kounta def pour ci ñuulaay bi ñuy wax ni ni ñoom sax daan doon nañ ko doon nañ ci bàyyi xel ndax Cheikh bu naa bi ko magam Cheikh Sy Mokhtar Kounta duggloo xalwa pour war ko yebal fii dafa dugg xalwa gis xorondom yu ñuul ba egg ci ndiggam Cheikh Sy Mokhtar laaj ko mu ni ko loolu di laa gis mu ni ko sa borom dafa la xamal ni sa njaboot nit ku ñuul lay doon mu ne moom bu ñëwee ci réew nit ku ñuul njabootam ñuul dinañ leen xeeb parce que xam nga naar ku weex dafa dafay tuutal toujours ku ñuul mu ni ko loolu mënul ñàkk mais dinaa la gàddu lu bokk ci yow ku ko xeeb yàlla delloo la ginnaaw ba nga mel ni liir buy nàmp waaw mais taxu Cheikh bu naa ma sawar mu moom ci woppam Cheikh si Moustapha Kounta def listixaar borom moom feeñu ko won ko ni ko bu naa ma xale lu mu xale lu mu baax baax dañ koy nax boobu si amu naa ma ay fas moo nekkoon bëgg-bëggam da daan dawal fas gawar la woon bu mënoon fas waaw mu ko da koy jox ay fas boole kook ñu gunge muy yebal ko mu dem jaay la ko réew yi ñuy wax songaan mu demee ba foofu man dinaa la ko téyel dootul dellu si ci la ko jox ay fas nag boole kook ay jaam bi ñu ñëwee ba euh, kajoor ñu fekk fa buur bu ñuy wax dameel amari ngóore ndee la moo nekkoon bat jaal kooku nag gis fas yi fasu naaru góor yi ngay dégg ci fasu seex bu naa ma yooyu la jóge fasu naaru góor bi mais nit nit dem nañ ba changé ko naan fasu daaru góor mais non non non fasu naar bu góor bi waaw. seex bu naa ma fasam yi dañu rafetoon damel gis ko nag ci jamono boobu daal di leb fas yi seex bu naa ma lebal ko bi nga xamee ni dem nañu ba ba ba dat bi jot mu war ko fay fayu ko bu ñëwee di ko laaj rek xam nga naar ak buur yooyu nga xam ne ni ñu beewee woon mu daal di continuer di def seen i wuureeg seen affaire. ba benn bi cheikh bu naa ma xaw a yaa ma xaw a tàng mu ñëw mu ni ko léegi dama bëggoon nga may ma xaaj ñu xaaj mun ko loolu wees na parce que fas yi may naa yii ñu nga bawal yii ñu nga kajoor yii ñu nga fee mun ko amee nga wax ci salaam ni rek d'accord ne xàcc nga ak man mun ko ah naar bi loolu yomb na xàcc naa cheikh bu naa ma daal di ñëw ni taalibe dem leen gas ay gétt te wuti ngooñ mu fas yi reere toog yor kurusam léeg-léeg rek benn fas daw egsi di xiixat ñu ba fas yëpp mat damel mu cubb nag doon ñëw di seet si naa ma fekk boobu am na feebar bu ko daloon ci loxo yi ñu di ko wax ràmm ci jamono boobu mu daan ko indil dax parce que daf daan sec mu di ko indil dax mu di ko ci diw bi muy ñëw nag di ko indil dax bi fekk na bu naa ma ci xaal boobu mu daal di nuyoo mu geestu fay ko mu mun ko lan la woon mu ni dax bi laa la indi mu raay loxo yi mu wér mu ne ko wér na demal waaw mu daal di wàññeeku nag dem ni càmmiñam nag gis naa naar bi jëflanteeg demal Amari Ngoone Ndeela loo xam ne bii te mer na ba sàqi ma ngay dem te xam naa ne boo ko gisee bu la ñaanalee yàlla mun naa def sa affaire baax ci la dem nag takk dem gàttandu ci cheikh bu naa ma ci yoon wa mu jaar mu ak moom ni ko dama bëggoon may ma ñu yendu mun ko ah man daal takk naa ba pare bàyyi ma mu ñaan ko nag ci àq yàlla ak yonent bi mu ne ah loolu de kenn du ko delloo waaw daal di ñëw mu dalal ko mu wàcc mu commencé rey ay xaat di ko teral di kii mu ni ko dama bëgg nga wax li nga bëgg ndax fi mu nekk ni naar bu ko wolof dee defal nii am na lu mu bëgg <laughs> bala ngay réccu daal bu fekkee li ngay wax lu mu ana am la nga teel nga xam bu lu mën a am nga kii mun ko samay nijaay ak samay baay fi ñu daan tollu di doon dammel mm-hmm. ak teeñ toll naa fa te moo sañoon dinaa moom kajoor te du ma xeex mm-hmm. mun ko ah mun ko ah ko ah, baax na demal pour ngoon bi mu demee mu ñëw mu ni ko bis bu dugub ñoree mm-hmm. suuna ba nga indi ma juróom-ñaari gub bis boo ko indee bu dee ngoon la bu bët setee nga doon buur bu dee suba la bu jant sooyee nga doon buur. Hmm, ñu dem boole ko du ma xeex wala ci boole. waaw waaw léegi nag bi mu demee wax nañ ni sax Fatma Cubb dem na ba at moomu bawal la ñëw jël see eh, dugub ndax bawal moo jëkk a dugub mu jël si juróom gub indi ko Cheikh bu naa ma xool ko ni ko bul ma juumloo yéen kajoor ngeen di wut te fii du dugub du dugub kajoor hmm. ñu dem bi dugub bi kajoor jotee nag. mu dagg ci juróom-ñaari gub indil ko ci la ko wax ni ko bu tey dina am ngelaw lu bari lu am caru garab gi ci kaw dina daanu sa doomit dina am sa jabar it dina am doom bu góor mais nag ma ko tudde mun ko ah mun ko ah mun ko lool boo gisee yooyu bu bët setee di nga doon buur nee bi ñu reeree ba pare ba mu ñu leen defal seen affaire junjung la ak yooyu di leen tëggal seen kii jikaar jikkaagi rek am liir bu yuuxu ci biir kër gi ñu daw ñëw ni ko soxna diw day am na doom ju góor mu ne ah naar bi day moo waxoon benn am na ci ñu toogaat tuuti ngelaw lu jóg ba bàngaasu garab gi mu ko waxoon garab boobu it daanu mu am ndox yu néew yu toq mu ne ñaar yi moo waxoon de am na waaye bi ma gën a ñor mooy ñetteel bi boobu egguñ ci bi mu xëyee ñëw di nuyu si Cheikh mu naa ma ci xayma bi la fa fa la fa si egsi ni ko damel du Amari Ngoone Ndeela saay na yow la Kajoor di xaat pour nga jiite leen mu daal di ko ni yow duma la fi bàyyi dañuy ànd ci la ko jël nag indi ko nekk ak moom ay fan Cheikh bu naa ma ni ko maa yow bokkuñu affaire affaire parce que yow àddina moo la tax a jóg te man fu ma jaamoo sama borom moo ma tax a jóg. Hmm, macha allah dama bëggoon nga mbay ma place boo xam ne bi daal dama fay jaam ci la takk nag ñaari fas ñu ànd ba egg si suuf bii ñuy wax ndàng nga xam ni fa la Cheikh bu Kunta miy juddoo mu gis Cheikh bu naa ma tibb ci suuf di suuf si daal di fóot ne xul xunaa ballatun taayibun nu rabul xafur fii dey suuf su barkeel la buur ma yërmande fi ne lu fi waaye jaamu yàlla dina dina dina ko nag moo tax même ci biir loolu sax dëkk boobu ma lay wax sëñ Touba wax na ci wax ju rëy ndax ma nga naan maa kunta ahjabu annal maa indakumu hatta tasakkartu anna cheikha mu abu naamata laa yakunu fi baladin ilaa asa jamiul xalq isukumu zalil kajoora fa innal seexa axrajaha min riqatil kufri annal arda ardukumu abaduha seexa wa taarixu yuxbiruna sataran fa sataran bi annal isa isukumu man kaana yuminu bi raxmaani xaalixuna yasa li murdati seexal xawmi jaddukumu fa jaddukum sayidil muxtaari asbaxana bi fadlihi fa billaahil fadlu indukumu sëñ Tuubaa da wax ni musuma njott wala may xalaat annal ma an ni ko ndox mu ñuul sax indoo ko mu ni kunta yi am nañ ko waaw mu ne xattaa lu dul nag te sakatu ba mu fàttali ko na seex ak ni ka seex bi kat jot ko mu mooy seen maam ñu ni ko man seex mu ne abu naama seex bu naama ba nga xam ne laa yëkkuma du nekk fii baladin ci palaas ilaa lu dul ne aasa dana baaxal jamiul xalqi mboolem càkkeef gu fa ne nee na waxul sax nit ña waaye garab yaa gàncax ga sax dina ko baaxal ci ak mbaaxam waaw ñu ne ko kooku fu mu dëkk mu ni salil kajoor waa kajoor fa na seexa ni ko seex mi kat axrajaha génne na leen min ribqatil ci ca buumi yéefaree ñu nekkoon annal arda ni ko kon suuf soosee ardu ku mu seen suufa waruñ ko bokk kenn dem nag ba ne man ka ana képp ku mu doon yuminuuna ngay aji gëm bi raxmaani buur bi nga xam ni xaalixu naa moo ñu sàkk yes a na nga wëy li mur daatin ci topp seexal xaw mi sëriñu sëriñ si jadd ku mu te mooy seen maam waaw waaye Pape foofu jar na taxaw def seetlu de taxaw seetlu ndaxte euh, ci maam borom Touba ndeysaan lu mu bën bind ci suñu maam bu ban njàngat ngay indi ci relation boobu ak leçon boo xamante ni di nga ko paase euh, jàllale ko ci jeunes yi balaa ñuy avancer. waaw xam nga li amoon solo mooy mag ñi lañ fee nekkaloon yàlla bi ci des ñaar ñoo am ci àddina. boo xoolee ngëm yàlla ba mu daj mooy nangu dogal lu yàlla dogal nga nangu ko loolu mooy ngëm yàlla di yàlla it mooy lu yàlla dogal nga ni déedéet waaw li la yàlla def ma ne déedéet pourquoi kooku waxatumaa yow yàlla laay waxal waaw ñaar yooyu moo am mag ñi nag dañoo dépassé woon soxor mënatul woon am place ci seen biir xol waaw waaw amu fa ñoom dañuy kii dañuy dañuy doon koo xam ni parce que même boo demee ci Masaalikul Jinaan sëñ Touba dafa wax ni moom bi mu jàngee sariya ba pare te bëgg a dem ci yàlla fekk na fi juróomi góor yi yàlla yoo xam ne bi kenn mënatul dem ci yàlla te fe a jaaroo ci ñoom ñu ne ko ñoo ñan la mu ne ka seexinaa mu jàddidil xasaali ñu ne ko akkan mu ne wa ibni ataa ay ñu ne ko akkan mu ne wa naa ak sama sang nag ñu ne ko ah sëñ bi koy sa sang mu ne al kunti yu ñu ne ko ah kunti yëpp sang lañu parce que yonent bee seen maam kan moom kan nga ciy wax mu ni sil anwaar yi boroom dëkku leer bi ñun ko ba léegi xamaguñ ko parce que kunte yi fu ñu dëkk dëkku leer la doon mu ni xaw sur wala xaw xawsu bi nga xam ni mooy làqwaayu mbindeef yi ñun ko ba léegi xamuñ ko mu ni xut bu raa xut bu bi nga xam ne wallukat la ku sa bët jox jàq rek boo ko woy muyu la ñun ko ba léegi xamuñ ko wax mu ni al muxtaar yi cheikh sil muxtaar kunte laay wax moom sëñ Tuubaa waaw ñu ko ak kan muy xam nga ñett ngi noonu ñu ngi ak kan mun wa seexina xalifatul muhayyadi bi xaqi min rabbil wara muhammadin muy seex si nurul xalifa yàlla da koo ngémb ci dëgg te da dañ koy li dañuy wax ni ubbi wuñu ay bunt ay fenêtre dañu daaneel miir yi ne noonu la yàlla maye seex si nurul xalifa doomi seex si maxtaar kunta boobu ñu ne ak kan mun wa xayrihim ñu ne ma saa xayrihim minal ma seexina xalifatu muhayyadi bi xaqi min rabbil wara muhammadin wa cheikhina mu fasil qurani mahamadul mansour li deymaane muy juróom ñu ne ko sëñ Tuubaa juróom ñii rek nga mën a mu ne wa xayrihim minal masaihil xisam jamaana allah bi yomal xiyaam bu fekkee am na keneen yàlla ko yàlla wanale koo ko yomal xiyaam waaw nga gis ni kon ñooñu ay mag lañu woon ñoo xam ne bi euh, li leen yitteel woon bokkul ak li ñu yitteel ñun waaw damay wax toujours ni mag ñi génn nit ñi ci lëndam dugal leen ci leer moo leen yitteeloon waaw ñun nag léegi li ñu yitteel mooy xëccoo mbooloo ak xëccoo daraja ak xëccoo yi yooyu nag defe naa ni ah, ku am fayda war cee bàyyi xel surtout yéen jeunes yi bu leen topp menn mbombax wala menn riir rek te loo xam ne bii poñatum àddina du ngeen ci jële yàlla du ngeen ci jële yont bi te àddina nag dund gi dund gu gàtt la goo xam ne bii jarul jarul yu baree baree bari waaw parce que boo xoolee mag Cheikh bu Kounda mi fi nekkoon xoola ba mu fi jógee léegi 1914 mm-hmm. hmm? la génn àddina waaw te mi ngi yàgg ci ñun waaw hmm? waaw ñi fi ñi fi fi jaar ci ñëpp seexal eh, bekaay moo doonoon xalifaam mm-hmm. moo jëkk a nekk xalifa seex bu Mohamed Kunta mm-hmm. moom itam moo moo génn àddina vingt-neuf seex si Lamine Kunta moo ko wuutu vingt-neuf ba soixante kooku boo gën a yàgg ci xilaafa gi mm-hmm. waaw vingt-neuf la toog ba soixante-treize mu jóge fii seex bu Abu Mohamed Kunta kii seex si di seex Alaaji Mamadou Kunta remplacé ko moom ñaari at la toog ay ak quelque mois jóge fi Cheikh ya remplacé ko ba 2007 dégg nga 87 moom it mu génn àddina bàyyi bu mi ñuy tuddee moom it Cheikh Bou Kounta comme ni li dal Cheikh Al Bekkay mii moo ko dalal moom itam bi bàyyam génnee 1914 àddina ci la gane àddina ñu tuddee ko moom la ñuy wax bàyyi bu bi ñu gàmmoo pare semaine boobu moom la doon defalaat anniversaire am dégg nga. bi mu jógee bi mu fi jógee nag alaaji moom Mamadou Kunta moo ko moo ko remplacé alaaji Mambu nag euh, sët la moo jëkk sët bi jëkk a toog waaye xilaafaam macha allah xilaafa gu barkeel la goo xam ne bii ñaanu mag ñëpp dañoo daje ci moom ci la njaasaan yokkoo ci la lépp yokkoo waaw waaw njaasaan bu jëkk ñu da ngay gis borom kër yu bari seen biir kay baal la ñu ne mais ci xilaafaam daal ci la mel ni ci la nit ñi am expérience xam ni kenn ku si ne da ngaa war a am kër. léegi bu ñu ñëwaatee ci fi nga xamante ni fa la ñu tolloon mooy bi mu jëflanteeg buur bi ba mu may ko espace espace bi mu ko maykat mu seet ni fii jaamu yàlla te balaa muy jëfandikoo moom ci yëg-yëg maanaam ci baatin bi nga xamante ne am na ko tibb na suuf si xeeñcu xam ne fii palaasu jaamu yàlla la ba mu sanc fa léegi nag ba mu ko sancee nan la lawalee ba lawal ba lawal ba ba mu mujjee doon eh, tarixa bu mag waaw noonu la fa nekkee moom nekk fa cheikh bu Kounta mi sanc fii ay maga mag fa cheikh albekaay cheikh maam xalifa sëriñ abidin maam sidi maxtaar ñoo xam ne ñii mook ñoom ñoo bokk ndey ak baay ñoom mais moom mooy caat cheikh bu Kounta moomu nag Kounta daanaka ci la fese fii ci Sénégal ak ci ci Afrique ci ci ci ay Malek xam nga Cheikh bu Kounta moo moo ñëw fii 1883 sanc ko mais musul dem Mali waaw te ñun ay taalibe bambara rek la ñu am waaw mais leeram la sànni Mali waaw da gis waaw da ngay gis buur boo xam ne bi ku amoon dara jàlla yor barke yor yëpp me da ngay tëdd ba guddi mel ni dañ lay dóor ay karawaas naan la Cheikh Abou Kounta Cheikh doo xam kooku doo xam nga jóg di laajte di laajte bañ tegtal la nga gis ñoo xam ni dañu yoroon seeni xërëm naan bu neexee yàlla day am bu naqaree yàlla day am ñooñu dañuy toog ba guddi rek ay karawaas di leen karawaasi ñu naan leen Cheikh Abou Kounta Cheikh Abou ñu jóg wut seen i cereeg seen i lem seen i affaire del dox ba egg ci Ndiassane bu ñu ñëwee nag bu ñu egsee bu ñu bu seex bu génnee bu ñu yemee ci moom rek dañu daanu xëm waaw nit ki ñu ki ñu gisoon ci ci kii bi mu ngi nii waaw daal di tuub mu tuubal leen fa tabaarakallaahu jàngal leen ñu bëri da leen daan yebal ndànk ci magam maam xalifa mais mujj maam xalifa ni ko ku ñëwati na yem foofu parce que yow yaay nitu àddina fii man yooyu kiiwuma mm-hmm. loolu moo indi tarixa bi dox ba egsi fi mu egsi Cheikh Bou Kounta daal ci jamonoom moo ko tasaare ba ñu baree baree jot mhm. waaw mu dëkkoon bi nag ak Seydi Aj Malik radiallahu anhu dëkkoon ak euh, Cheikh Amadou Bamba euh, mage woon na Alaaji Malik quatre ans mage Sëñ Tuubaa quinze ans Cheikh Bou Kounta moom waaw comme ni nga waxee dëkkoo nag euh, ki nga xamante ni moo di Seydil Hadji Malick ñu nemmeeku ne sax distance bi sorewul euh, ban anecdote nga ñu mën a euh, raconter bu bàyyeekoo ci ñoom ci ñoom seen dëkkin. waaw xam nga jamono dañu toll foo xam bi tarixa dafa yàq yu baree baree baree bari ndax bari na yoo xam ne boo ko waxee sax ñu am leneen nu ñu ko gisee te fekk na dëgg la parce que Seydi Hadji Malick dëkkul woon Tiwaawan mooy nekkoon jag saaw wax nañ ni da na fa dugg xalwa ba am lu ko feeñu ni ko da ngay fital jaar mais xelam dalu ci loolu parce que ku ne xam na ni ginnaaw yonent bi fital ci jaasi dañ ko tere jihaar ci jaasi da ngay waxtaan ak nit ki rek ba convaincre ku mu dugg ci diine mais boo boo tuubee ma may la kër sax boo tuubee ma may la jabar loolu sax lislaam nangu ko mm-hmm. waaw kon kenn du forcé kenn ci diine ci la fa jóge nag ñëw seet si Cheikh bu Kunta Cheikh bu jël benn turu yàlla jox ko ni ko demal sikkar ko bu fekkente ni yàlla moo la doon feeñu noonu mm. di nga ko gisaat bu dul yàlla dootoo ko gis mm-hmm. ba mu demee dugaar xalwa sikkar turu yàlla boobu ko Cheikh bu Kunta jox gisatu ko waaw ci la wax ni shahaadatul mar'i fii daarayni in kamulat yasabilu sa cheikhal kunti fihaari dem ba naan abu muhammad lan kunti wii safari cheikhu suyuuxi abilan waari xaati xaatifana tiwaawanul yawma ahlaaha wa saakiluha maalikuha fiihi maa bukunta min darmin mu ne dëkk ma woon tiwaawan tiwaawan du cos ma sama cosaan waaye ba ma ñëwee seet seex bu te ma wax ma li tax may toog ci tiwaawan te sama xel dal ci loolu man alaaji maalik kon yéen waa tiwaawan la ma féete woon kanam féete ma ginnaaw féete ma ndijoor féete ma càmmoñ man maalik ak sama njaboot ñu ngi ci biir kaaraangeeg seex bu kunta pour ragal bépp loraange bu ñuy lor nga kooku comme li ñu waxoon sàng rek ni mag ñi amuñu woon lenn ci soxor kenn ku ci nawet xamoon nga sa morom xam nga euh, poids ba muy peese waaw euh, lu ci des euh, nga gis si kii sëñ sëñ Babacar si joxoon nañ ko doomu Seex bu Kunta mu di ko denc muy maam Mariama ma nga ma nga ba ba foofa sax Njaasaan lañ ko tuddee bon boo demee Touba sëñ Modou Moustapha ñu ngi ko joxoon suñu bàjjen Astu Kunta ñooñu ñëpp jaxasoo boobu dañ ko jaxasoo woon ak kunte yi wa laaw muy nekkin bu rafet ñu àndoon ànd bu rafet di dund dund gu teey lenn rek moo leen yitteeloon jële nit ñi ci lëndëm dugal leen ci ak leer kon nag ñun ñi fi ne waruñoo mujj puso bi mu réer nañ góor te bañ a fab tarixa yi rek def ko ay jaasi di ko xeexe sama sëriña man sa sëriñ ak sama sëriña def lii sama sëriña nangam loolu amul benn taalibe njariñ taalibe fi sëriñam tegoon tànkam lay jéem a teg tànk bu bu ko jotul it bu sëriñ bi egg buy taxaw tuuti taalibe bi egg si waaw waaye bu sëriñ bi la la sëñ Fàllu waxoon ndongo la dañ ko def ci yoon wi naaj bi tàng sëñ Fàllu gis ko ni chauffeur bi mu taxaw mu taxaw mu ñu ni ko yéegal mu yéeg mu ne ah mbàkki nii rek yomal xiyaam it nii mun ko waaye nañ leen fekk ci yoon wi rek xam bu fekk ci yoon wi la mën a yóbbaale mais bu fekkoon waa jaa ngi ci biir àll bi du ko du ko mën a yóbbaale kon nañ góor góorlu ci jaamu yàlla bëggante soppante yéen ñi toll ci ndaw itam ngeen xam valeur bi leen yàlla defal xam ni doomu aadama ba ko yàlla sàkkee ni wala xadd karam naa ba ni aadama maa sàkk doomu aadama pare tereel ko kon doomu aadama mënatul teddadi ku tedd di rek yaa tedd di sa bopp mais yàlla moom mi la sàkk nee na moo la teral kon nag yow sa bopp war nga am fayda gu toll ni bañ a tedd di sa bopp waaw bu ko defee bon ñu bàyyi leen ngeen dem mm, kii seen affaire parce que waaw xéwlu bi ah, mi ngi naaj di leen remercier ci ci ñëw bi ah tabaarakallaahu di leen ñaanal yàlla it seen télé bi yàlla na ko yàlla ful def ci barke ba yéen ñi ciy liggéey ñëpp kenn ku ci ne euh, jëlee ci fajug aajo ci saayir ak ci baati nag waaw parce que fajug aajo saayir day am saayir mooy li ngay mën a faja say soxla di ci def dund si dund gu tey waaw baatin bi nag mooy nga dem a dem ba mujj euh, nga amee ci loo ci jëlee ci def lu baax ba yàlla am ci ngërëmal yàlla te loolu kenn ku ne parce que nii ngeen ñëwee ci kër gu ëtt bu mel nii war ngeen fee mën a jëlee lu dul euh, waxtaan rek dem waaw parce que xol yi heure bu seddee rek yàlla mun na faj seen aajo incha suñu papa Serigne Bounama Kunta mu ngi ni sax dafa ñuy bàyyi ñu daal di xiwlu ndaxte coono bi waaye nag mu mel ni équipe bi tey jii sentiruñu sax xiif dama koy xoolee rek ci ki nga xamante ni moo di Assane Sarr ndaxte mbégte bi nga xamante ni am nañ ko surtout bi ñu duggee fii cofeel ak xol bu bi nga xamante ni euh, sentir nañ ko peut-être loolu moo ñu tee ba tax xiifuñu waaye nag ci biir entretien bi am nañ yaakaar ni jëlee ngeen ci ay leçon ñu waroon waxtaanee rek li nga xamante ni moo di seenub euh, descendant am yaakaar que ni lépp li nga xamante ni suñu papa Serigne Bounama waxtaanee na ko ci diggante kilifa diine yi surtout loolu tamit ñu noté ko bu baax a baax diggante kilifa diine yi niñ doon jàppalante niñ doon euh, nawante ci seen biir ki ñaan noté ko fa woon benn yoon waaye tamit mu waxtaanee soññu ñu ñun ndaw ñi ñu daal di rek xool ci ki nga xamante ni ñoo ñu mën a yóbbale ci yoonu yàlla ñu daal di leen dénk suñu bopp maanaam dañuy moytuloo yenn naxee mbaay ah ñu jàpp rek moo di dégg ak topp jërë ngeen jëf ci yéen ñi ñu doon seetaan ba tey dinañ wey di leen dégtal ay reportage fii ci biir Njaasaan jërë ngeen jëf ci teewlu bi